Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نيجي سنت يالا نيجي ماغال نيجي كاج نيجي جولي سي يونس صلى الله عليه وسلم ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam fi mu ko tegoon ba yow ba yowmal xiyaam yàlla nañ ci yàlla boole loolu yomb yàlla la doomu ndey mbokk jullit ñi nañu xam ne suñu diine bii di islaam mooy diine tawhid mooy diine wéetal borom bi subhaanahu wa taala mooy diine bi yàlla reconnaître te mooy diine bi nga xam ne bi àdduna sosoo ba léegi moom moo fi nekk diine boo xam ne mooy diine bu valable incha allah ci biir xutba bi loolu yëpp dinañ ko justifier ñu xam ne bi àdduna sosee ba bi àdduna du tukki benn diine moo fi nekk te du lu dul benn diine moo fi nekk muy diine bi nga xam ne mooy diine islaam te moom la yàlla reconnaître yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ne ci alquran mu ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم yàlla suñu borom mu ne moom si boppam moom yàlla maanaam léeg-léeg bu ñuy wax terme di utiliser borom subhanahu wa taala dañuy xool dayoom moom su boobaa li mu wax wala mbir mi dinañu gën a xam sens bi bu baax a baax lenn rek doy na ci xool dayoo borom bi subhanahu wa taala mooy que ne moom rek moo fi nekkoon te fekk dara nekku fi waaye lépp tam dina fi jóge te moom kese moo fi nekk moom donc bu ñu waxee lool na xoole ci diggante bi dara nekk fi woon ak léegi li fi xew ñaata ñaata ay siècle ñoo fi jaar ñaata ay yonent ñoo fi jaar ñaata ñaata ñaata ñoo fi jaar yàlla daf fi jëlee lépp kullu man alayha faan lépp daf fiy jóge moom yàlla rek moom moo fi des kon bu ñuy wax mbir tudd ci yàlla dayoo boobu la ñuy gis ci moom pour mën a xam sens bi nga xam ne ku nekkul ci loolu te moom yàlla mu jiite ko suñ ci nekkul ñun ñëpp du ko wàññi dara suñ ci nekkoon ñun ñëpp tam du ko yokk dara moo tax li ñu war ñun mooy ñu seede nit ki buy dugg ci islaam lu muy def mooy dafay def baatu shahaada yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye yàlla nee na ku ci jiitu mooy nee na moom yàlla moo ci jiitu kon yàlla moom seedeel na boppam moom laa ilaha illa allah kon ñun ñëpp bu ñu maasandoo woon seede laa ilaha illallah amul dara lu muy yokk ci moom parce que balaa dara di fi nekk moo fi nekk te lii yëpp daf fiy jóge ñun nit ñeeg jinne yeeg lépp daf fiy jóge moom kott mu des bu ñu mànkoo woon bañ a seede baadu baadu seede bi du wàññi ci moom dara il faut que doon lañ koy déggee kon lan mooy suñu intérêt kon moom mooy que ne ñu seede ko comme moom nu mu ko seedee parce que loolu ñun lay jëriñ waaye moom amul lu muy jë lu mu koy jëriñ ci moom moo tax yàlla riime rim bi moo tax nit ki war na góorgóorlu mu bokk ci ñi yàlla tudd fii yàlla nee na shahida allahu moom yàlla seede na ak kan mu ne wal malaayikatu ak malaaka yi ku mu ci teg wa ulul ilmi boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñoom ñoo lay doué d'intelligent ñoom seede nañu ne laa ilaha illa allah yow mënoo nekk yàlla mënoo nekk malaaka waaye fexeel bokk ci ulul ilm ndax nit ki dafa war a xam lan mooy laa ilaha illa allah yon bi saa salaam yàlla ci alquran tëbul rek ne ko waxal waaye daf ko ne xamal faalam annahu laa ilaha illa allah mooy xamal laa ilaha illa allah kon laa ilaha illa allah nit ki daf ko war a xam bu ñu nee xam nag mooy dañuy ñëw ci linguistique mooy langue arabe bi nga xam ne moom la ko yàlla waxee ku nekk jéem koo firi ci langue bi mu dégg ci kémtalaay kàttanam su ko defee bu ko firee nag maanaa laa ilaha illallah yi doog a ñëw mu doog koo mën a téye ci loxoom lan lay firi dàq la ak saxal boo nee laa da ngay dàq lépp loolu baykat yi ñoom ko gën a xam balaa ngay ñëw di def pepp bi ci ci ci ci ci suuf si lépp lu fay ñax ak di fay luy yàq da nga koy dindi dindi lépp doog a nag saxal sa ji bi waaye ndax fa ngay yem déedéet doo ci yem de bu taw bi commencé taw ji bi commencé meññ boo toogee croiser les bras kër ga di xaar boo moytul mbooy ngay am mooy ñax bi day ñëwaat di jaxasoo ak jiw bi dem ba finalement sax ëpp doole jiw bi ba du génnee pepp bi ni nga ko bëggee mooy li ngay bay du baax mooy nit ki bu ne laa ilaha illallah xam ko ba pare saxal ko ci làmmiñam dàq lépp warul tak toog rek croiser les bras ne dàq naa ko déedéet dafa war di ko saytu à tout moment léeg-léeg nga gis baykat bi day nekk ci biir rangée jiw jiw yu mu jiw di seppi rek di seppi rek di seppi rek di teg fële yooyu muy seppi baaxul dafay yàq kon nit ki noonu la war a taxawee tamit baatu laa ilaha illallah bi di seppi lépp lu koy yàq di teg fële te xam ne mënul ànd ak moom moo tax nit ki ne laa da ngay dàq lépp lépp ngay dàq ilaaha ci li nga war a jaamu illallah ku dul yàlla moom dong la ñu war a jaamu lii mooy lii mooy firi baat dàq naa lépp du ma jaamu lenn illallah ku dul yàlla kott lay jaamu te loolu moo tax sax yàlla binduñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni yàlla dafa bind doomu aadama ak jinne lul nañ ko jaamu kon lii dafa nekk loo xam ne jarul calcul dafa leer lu automatique la baat bi nag làmmiñ bi moo koy wax waaye xol bi moo koy fas cër yi ñoo koy jëfe dafay automatique benn mënul dem bàyyi moroomam électricité bi loo fay jiital def installation dugal fil yeeg yooyu yëpp ñoom seen indi contact lan nga ci jublu lampe bi tàkk wala ventilo bi daw wala congélateur bi congelé kon nit ki ginnaaw làmmiñ bi seede na baat yi na fexe ba énergie bi na fi nekk tey loo installé contact bi nekk fekk fil yeeg yëpp nekk fi bu énergie bi ñëwul rek boo taalee da ngay contact ba sonn dara du fonctionné kon xol bi dafa war a nekk dafa war a fas baat bi mooy que ne amul dara lu mu war a jaamu ku dul yàlla kott la war a jaamu su ko defee nag cër yi jëfe ko nan la koy cër yi jëfee mooy day taxaw di lijjanti lan la yàlla bëgg ci moom mu nekk ci kéemtalaay kàttanam lan la yàlla bañ ci moom mu bàyyi ko totalement lii mooy taxawaatu taxawaayu baatu laa ilaha illa allah làmmiñ bi moo koy wax xol bi da koy fas cër yi di ko jëfe ñu ñëw suñu réew nga wax ak nit sax léeg-léeg mu ne la mbir mi ci xol bi la fekk jëf gi muy jëf ute na ak jëfu laa ilaha illa allah boobu day nax boppam laa ilaha illallah nekkul ci xol bi xol comme éponge soo ko dugalee ci ndox bës ko pressé ko ndox mooy génn soo ko dugalee ci meew bës ko pressé ko meew mooy génn kon xol bi bu fekkente ne laa ilaha illallah moo ci nekk boo ko bësee pressé ko cër yi dañ koo war a jëfe laa ilaha illallah yonte yàlla Moussa alayhi salaam ci suñu deuxième xutba moom la ñuy jël gën a leeral ne lii moom moo fi wàccee woon yonent yépp taxaw na laaj yàlla ne ko jox ma baat boo xam ne mosoo koo jox kenn ma di koy zikr di la ci fàttaliku yàlla ne ko waxal laa ilaha illa allah mu ne ko pourtant lii de fii laa ko fekk te maa ngi la laaj loo mus a jox kenn yàlla ne ko lii moo téye àdduna maanaam bu demee ba lii amatul àdduna àdduna amatul benn sens ci ñun moo tax booy xool liñ ko tuddee apocal apocalypse lañ ko tuddee xaw ma àdduna bu naree naree tukki ñii baat bi nekk seen xol ñëpp yàlla daf leen di jël du ñu fekkee lii kon nañu góorgóorlu ba loolu nekk ci ñun su ko defee ñu bokk ci ñu yàlla di gërëm yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aquli qawli haza wa astaghfirullahi wa lakum li lisaa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu ndey mbokk jullit ñi suñu diine bàyyiwul dara mooy diine bi gën ci diine yi nima diinu diinuna al islaam waaye law kaana lahu rijaal diine bi gën ci diine yi mooy diine islaam de waaye ndax am na ay góoram ndax am na góor yu pare pour taxaw yëkkati drapeau islaam muy folote te buñ ne drapeau islaam mooy lan laa ilaha illa allah amul benn drapeau booy gis ci islaam te gisoo fa laa ilaha illa allah kon drapeau islam boobu dafa war di folote comme ni ko saxaabatul kiram téye woon nga xam ne dañuy nekk ci même plein guerre nit ki ñu dagg sa loxo fekk yaa yore woon drapeau bi nga fexe beneen loxo bi dagg téye ko ñu daggaat beneen loxo bi nga fexe sa cër am leneen lu ko téye ñu dem ba sa cër sa cër mënuñu mënatu koo téye keneen jóge fee ñëw këf ko téye loolu ci jëf la woon seen cër waaye dafa nekkoon seen biir xol moo tax ñu mënoon doon dégg loolu kon nañu taxawee taxawaayu saxaabatul kiram loolu mooy góor yàlla dëgg yi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene taxaw li taxawal li nga xam ne mooy kàddu bi ku nekk ak sa génération waaye suñu génération nañu fexe ngalawaay ba posub bu mu réeree suñu loxo sinon gàcce lay doon rawatina ñun doomu Sénégal ñun ñi nga xamante ne suñu réew cosaanam mooy diine nañu bañ li ñuy gëmloo suñu réew du du réewu cosaanu ceddo yàlla tere fii la suñu ñoom maam Cerno Souleymane Baal nekkoon fii la ñoom suñu ñoom maam maam suñu ñoom maam lu mel ne Maba Jaxu Ba nekkoon lii fii la lu ñu leer si ñun sëñ Tuubaa xam nañu ci diine mais dañu gëmloo ay Baba Jaxu Ba ay Cerno Souleymane dañu boo dañu bëgg gëmloo ay comme ay ay royaume lañ doon xeex ay ñoom nangam lañ doon xeex wallahi tawhid moo nekkoon ci ñoom te sunna moo nekkoon ci ñoom diine islam bi nekkoon fii Sénégal dafa amoon doole ba tey français bii tey ñu gëmloo ñu bët ñu koy bindee suñu lépp suñuy date de naissance di ko attewoo lépp ñoom loolu nekkul woon ci ñoom buñu daan bind lettre arabe sax lañ ko doon bindee kon islam moom moo fi nekkoon base du ceddo kon ngallaawaay ñun ñi tombe lii puso bi bu mu réer suñu loxo siinoo gàcce lay nekk doomu ndey yi mbokk jullit ñi nañu fexe feesal suñu xol dellu tawhid ndax loolu la ñuy amee mucc àdduna ak alaaxira képp koo xam ne deewaale na ak li nga xam ne mooy tawhid donte bàkkaar yi bëri woon na lool bu naree jaar safara du fa sax dafay jaar rek pour yàlla raxas ko waaye képp koo xam ne dee waalee na ñàkk tawhid te mooy bokkaale di contraire tawhid xaalidiina fiha abadan yàlla bu waxee ci alquran nii sax safara boo xoolee da koy riime faw mushrikun bokk ci inna allazina kafaru min ahlil kitab war mushrikina fi naari jahannama xaalidiina fiha abadan duñ fa génn mukk ñoom bu ñu duggee dañuy kaste seen place kenn du leen fa génnee te duñ fa am ndimbal lan moo leen ko yóbbee mooy ñàkk tawhid ñàkk wéetal borom bi subhanahu wa taala kon nañu góorgóorlu ba tawhid boobu nekk ci ñun doomu ndey mbokk jullit ñi diine bi yàlla reconnaître moom mooy diine islam comme ni nga ko jàngee woon ci premier xutba bi waaye bi loolu amee wàcc ñëw yonent bu nekk ku ci nekk lu mu woo ci xeetam benn kàddu bii la forme bi mooy am différence waaye boo ko firee benn wax bi lay nekk yaa qawmi ubudullaha maa lakum min ilahin xayru ñoom loolu lañ doon wax de yéen sama xeet ubudullaha jaamu leen yàlla maalakum min ilahin xayru bu leen ko utal dend loolu mooy laa ilaha illallah bi ñu firi ñoom ñëpp loolu la ñu woote seen xeet yi kon tawhid la yonent yi musa woote te ba si yonent yàlla muhammad te moo fi continuer di nekk moo tax yàlla ne diine boobu la reconnaître waaye nag ginnaaw diine boobu la reconnaître lan moo indi problème li yëpp ngay dégg ay yeneen façon diine yàlla moo ñu ko leeral ci alquran mu ne moo ne wa maxtalafa fiihi min baadi ma jaahumul ilmu baxyam baynahum ginnaaw bi yàlla wàccee ci ñoom xam-xam bu leer ñoom dañoo discuter seen biir yamuñu si discussion bu simple sax waaye yàlla dafa ne discussion bu tar bu ànd ak agressivité lañ doon discuter de seen biir ba tàqale li nga xam ne mooy seen bopp créer seen diine bopp moo tax bari alxuraan yàlla lu muy wax inna lazina farraqu diinahum ñu tàqale seen diine moom génne na ci boppam moom yàlla kon diine boobu yàlla reconnaître ginnaaw bi mu leeree ci gaa yi nga xam ne yàlla joxoon na leen ay téere mu leer nañ ci ñoom seen yonent woo leen ci lu leer yàlla jël seen yonent ginnaaw yonent yi ñoom ñoo ñëw indi ay divergence seen biir créer ay mbir yoo xamante ne dem ba jëlee fi tawhid di dund li nga xamante ne moom mooy shirk yàlla dem ba mbir mi soob ko mu yónniwaat keneen kooku ñëwaat leeralaat am ñu ko toppaat mu jógewaat fi gaa yi indi werante seen biir tàqaliwaat seen bopp indiwaat ay yeneen diine yoo xamante ne kenn xamu ko woon nii la mbir mi mbir mi demee benn yonent mucc si moo tax yonent saa salaam ne sama xeet bii dafay tàqalikoo ji comme ni Moussa ñëwee woon dem xeetam tàqalikoo ci nangamu pàcc comme ni Isa ñëwee woon bi mu demee xeetam tàqalikoo ci nangamu pàcc mu ne sama xeet bii dinañ dem ba tàqalikoo ji ci nangamu pàcc waaye lu mu wax mu ne kulluhum fii naar ñoom ñëpp safara illaa waahid ba mu des kenn waxu fi tur de waxu fi tur de dafa wax ay melokaan kon nañu fexe ñun ñëpp ñu góorgóoru nekk ci melokaan boobu te xam ne amuñu différence lu mu wax mu ne man kaana ala misli alayhil yawmi wa ashaabi képp koo xam ne nekk na ci man li ma nekk bés bii may wax ak yéen nii ak sama saxaaba yi ci luñ nekk kon nañu fexe xam yonent bi ci lan la nekkoon lan la ay saxaabam nekkoon ci lan la leen yaroon ñu fexe ñu teg ci suñu tànk loolu moom mooy tax ñu bokk ci xe- benn pàcc bi muy wax naan ñëpp safara ba mu des benn pàcc boobu kon pàcc boobu noonu di mucc ci safara nekkul pàcc boo xam ne dafay tudd Ousmane wala dafay tudd Masamba wala dafay tudd Mademba déedéet dafay am melokaan bii mooy lan mooy mu nekk fi yonent bi nekkoon ak ay saxaaba te loolu moom moo ñu war wayn wayn tutuyhu taxtadu yàlla daf ñuy wàcceel yonent bi joxoon ñu ko ne moom la ñu war a topp moom mooy suñu roy waay kon du par hasard rek mu yónni ko suñu jëlee yon yon yonent boobu noonu jël ko daal di koy teg de côté xaw koo délaissé kon dootul am sens yónni bi yàlla yónni yonent yi yàlla nañu yàlla may dégg ak topp képp koo xam ne nag lii ñu wa- yàlla wax fii mu leer yàlla nee na inna allaha sarihul xisaab yàlla kat ku tar la ci li nga xamante ne moom mooy atte ñun ñëpp dinañu atte te du bàyyi misqaala zar fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله